salaamaaleykum uh, waa Jalaaw salaamaaleykum waa Sénégal nu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawu coono ah di gërëm waa Jalaaw TV ndax uh, ñu ngi def liggéey bu am solo bu dul dara sax ñoom dama leen war a baalu parce que démb bi mbir mi amee ñëw nañ pour déglu mais boobu fekk na. yëguma woon dara gisuma woon dara lu dul protéger samay supporters protéger waan di tax fexe maîtriser situation bi looloo waral ñoom bi ñu ñëwee jotuñoo jotuñu maa mën a jot moo tax maa ngi leen di jégalu ci loolu mérité ngeen lu ëpp loolu waaye nag dafa fekk euh, problème bu amee situation rek la ñuy xool man ne woon ci nag ak commandant brigade bi di fexe nan la sama équipe di delloon di tax maa ngi leen si jégalu bu baax di nuyu waa yéen ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di ziar ñëpp di masawu coono ñëpp ci xew-xew yeeg ñii si gaañu aussi ñu ngi koy déplorer bu ko defee rek damay ñëw ci li xewoon te damay wax sax avant muy xew la yan tànk lañ ci doon dox yàlla dogal na bi ñu jàppee datu match bi demi-finale bi dañoo woote. waxtaan ak waa dëkk bi wax leen ne bëgg nañoo dem sans violence bëgg nañoo bëgg nañoo dem si si ci euh, match bi sans violence ñu dem gis képp kuy kilifa ci dëkk bi yebal nañ la ci sa doom ci sa njaboot pour nga wax ak ñoom képp koo xam ne aussi mag nga yebaloon naa la nga wax ak sa rakk bi loolu weesoo waxoon nañu imam bi ajuma bi passé def na xutba bu am solo ci diggante yenn kaw ak nditax ni ñu bokk ni ñu war a rafetoo ba waa nditax ñépp ñu dal déglu kilifa yi vendredi boobu ci ngoon fii laa woo xale yi ci terrain bi xamal leen ne dañuy dem fubali ji mais géere jiw ñu ñaan leen ne leen képp ku gis luy gaañaate ci mbedd mi sax sànnil waxuma nga téye ko ba di ko utiliser pour de violence ñu may ma loolu loolu moo waral bi kenn yaaxulewul këdul man bi kenn gaañuwul këdul man ma kontaan ci parce que moo ma gënaloon ma tere leen ne doo leen yor ay ngànnaay ñu dem dajeek ñu yor ay gànnaay ñu gaañ leen bu ko defee rek avant match bi taxawaay boobu lañu amoon dem nañu fi brigade man ma commanda bi waa Eten nee nañ man du ma jaar si bi est-ce que loolu jaadu commanda bi ne ma loolu jaaduwul tali bi tali bi ñëpp la ñëpp ñoo am droit pour jaar fa ma ne ko di nga jël say parce que ñoom loolu la wax que devant le président de de la zone devant le président de de Eten Idi Idi Niang ñu wax loolu ba mu leer man ma yaakaaroon bu ñu delloo liggéey bi ma def dinañ ko def mais malheureusement gis naa ne liggéey boobu amul yenn yenn kaw bi ñu dépare bi ñuy pré départ laa woo sama chef de village Baye Sidya Ndoye ne ko na woo ko commandant ñu ñëw gunge ñu ñu dem parce que bëgguñu violence ñu waxante dëgg ko euh, gendarmerie dafa yéex a ñëw bi ñu dépare di dem si hauteur yenn kaw juste lañu ñu supporter yenn kaw baare man sama oto bi ñu yaaxam moo jiitu woon kii toog mag moom ñoo nekkoon si oto bi ñoom bi ñu diiree daw jëm si ñun man dama gaare oto bi tëb dem di wax ak samay supporter pour ñu bañ leen wuyu mais kii première brique bi ñu dóor si oto bi si boobu mu ngi ci biir oto bi sama copain bi si la daw génne ñom ñu def auto bi nu ko ne nu leen neex boobu man loolu mu ngi sama gannaaw parce que boobu maa ngi calme samay supporter pour ñu bañ wuyu violence pour mu leer rek ñom dégg ne wax nañ sax si à travers à travers TV ñu ne man maa créé xeex bi man maa fexe ñu tëj sama auto képp ku yor xel di déglu di xelaat xelaatal rek kii mu ngi woon ci biir oto bi man démb dafa dem ba sama loxo yi mënatul jóg parce que dama calme ba na xale yi buleen sànni bu leen sànni léegi ñoom li ñu waxoon lañ def ñu baare tali bi ma am ci lu ma naxari torop si waa yenn kaw ak seen magi waa yenn kaw parce que dama koy wax nag ku dee ak sa bàmmeel def nañ fa lu war a ma 30 wala 40 minutes xale yi baare ñu di xeex ak ñun lu ne ñu def ko mais gisuma benn magu yenni kaw bu ñëw wax ak seeni doom man ma yaakaar ne kilifteef gi am di tax ñoom buñ ko appliqué woon xale yi di tax ni ñuy déggalee seeni wéyjur ak seen imaam bu ñu ko defoon liggéey boobu bu amoon yenn kaw jàmm rek mooy am kenn du xeex dinañ dem terrain ba fubal ci jàmm ñibbi ci jàmm may woo kilifa yi ñu dellu ci seen xel wax ak njaboot gi loolu kese mooy solution parce que am na loo xam ne si biir néeg lañ koy euh, liggéeyee mu génne si penc génn ci dëkk bi mais am na loo xam ne boo ko bëggee regle si penc mi musiba mooy am man nag damay sant yàlla bu baax oto boobu weccit la rek man nga toog léegi une heure de temps nga jëndaat oto mais li ma doon gën a ragal mooy benn doomu nditax tëdd li ma gën a doon gën a ragal mooy gendarme yi jàpp doomu ndi tax yóbbu bekkeen amul njëkk moo tax oto boobu euh, ñu yàq du dara ñi may woo di ma masawu mais du dara li ma doon bañ euh, am naa ko maanaam li ma bëggoon am naa ko muy kenn bañ a tëdd ci doomu ndi tax yi te mënoon naa nekk nag parce que kii bi ñu nekkee ci oto bi ñoom bi ñu diiree. ñaari solution ñetti solution moo amoon man ma foncer seen kaw waa yenn kaw te du ma ko def wala ma arrière sama kaw yi supporter du ma ko def wala ma bàyyi leen ak oto bi ñu ñu ñu def ko nu leen neex te solution boobu laa la laa leen jox ñu def lu leen neex ci oto bi te encore une fois weccit la rek loolu newul loo xam ne lu ñu mënul amaat la bu doon bakken la kenn du ko amaat jéena euh, situation boobu lañu doon gérer moo waral ñu am comportement bi démb démb nag bi gendarme yi ñëwee lay doog a gis ay mag yenn kaw ñu génne mais mag bu wax ak man mag kalake sa kaw parce que boobu def nañ li ñuy def ba pare ay jigéen daal laa fa gisoon ay maire man may laaj ana kilifa yi ana kilifa yi yenn kaw si ñi ma jëkk a gis bàyyi góor gi ñaar si la bokk mais ana ñiy des ñu bàyyi ñoo xale yi ñu def lu leen neex commandant bi ñëw nañu ñun ñu dellu parce que match du am fekk man euh, dama def stratégie équipe bi ma doon yóbbu fii am naa beneen équipe ba nga xam ne dugg na stade bu yàgg fekkewul coow li boobu fi mu jaar xaw ma ko mais dugg na stade ñoom nag dañ yaakaar ne sama équipe lañ lañ bloqué mais déedéet équipe bi waroon football dem na stade donc am na yoo xam ne moom ñun ñoo koy liggéey. fii ci ndi tax te ñun la conserné mais daal euh, noonoo bi mën naa ñàkk te woowu ñu kenn ci violence te maa ngi wax ne maa ngi dégg ci benn rajo am ku ne benn waan di tax moo ne ñoom jekkuñu kooku du man man mi équipe bi dara ump ma ci mais kooku du man waroon nañ ma bàyyi ba ma dem stade mu ñu xam waaw comme ni ma la ko waxee bi may ubbi mag kii ñoo jiite woon euh, gaa yi équipe bi ak supporters yi ñuy ñuy daw ndànk-ndànk mais ñële bi ñu diiree ñëw songañu ci laa wàcce daw si samay supporters wan oto bi ginnaaw ak waaye yenni kaw mais man li ma leen di wan ginnaaw maa ngi gis xeer yi di ñëw donc ñoom amuñu dara lu ñuy xaar dañuy préparer lépp dañ ñëw rek dal suñu kaw léegi bi ma poussé booy yi ñu reculer laa dégg ñu xeer yi di dal si oto bi tëf tëf tëf ñu def si lu leen neex mais amuñu benn temps bu ñu jël pour réfléchir wala de dañ ñëw rek dal si kaw booy yi. non non loolu nekkul si texte yi euh, xam nga match bi dañ ñu ko jox ñu jox ñu convocation bu am heure ñoom waa Etienne aussi am nañ convocation bu am heure. heure boobu wax naa ko commandant bi wax naa ko sama délégué de quartier muy Baye Sidiya Ndoye mu wax ko commandant bi te bi ma kay wax pour ñu ñu orchestre noonu ñu dem stade bu heure bi la passé euh, comme dañ ma jox heure daal dama war a respecter heure bi mais commandant bi bi mu ñëwee ne match du am moom autorité la am na droit bi mais man amuma droit ne du ma dem damay toog du bu waa du am lu ma lay mais fi mu ne nii commandant bi moo ne du ñu dem moo tax ñu taxaw donc loolu daal mooy sa question bi mais jigéen ñi nag li ñu wax dëgg la lenn rek moo moom laa lay wax ne amul mooy awuñu woon côté yéeni géej kii mu ngi woon ci oto bi bi ñuy ñëw juste ñi ngi toll ak seen monument boobu ñun bi ñuy toll ak euh, doodaanu yenn kaw bi ñoom ñu foncé ñu daje ci kër a Amadou Amadou Amadou Thiandoum euh, kooku sax xam naa dina yàqule parce que ñoom xeer yi ñu doon sànni la leen ba yi doon delloo donc loolu la mais demu ñoon côté yéen géej man xam naa ne dem nañ yéen géej après avant parce que nii lañ doon def si tali bi mais mag yéen kaw waruñu leen bàyyi ñi bouger circulation bi d'accord naa bu ñu gañee ñu jubilé comme nii ko ñëpp di defee mais dara xewagul yow nga war a dem sa équipe mu ngi stade nga war a dem euh, supporter sa équipe nekk fii di bouger circulation bi ba pare rite secondaire yi ñuy wax ne mën nañ fa jaar yëpp dañ ko bouger man sama imam côté boobu la dëkk am naa kenn ci samay sage grand Ibrahima Sène veille match bi foofu la fanaan ñoom euh, waa Etienne xaw ma seen sécurité la xaw ma je sais pas foofu la fi naan ba stade bi yëpp dañ ko doon def ay patrouille donc lu ñu préparé la ñun mënuñu si dara ñun fii ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa avant matt déedéet déedéet manuma ko xaar xam nga lu tax xam nga lu tax manuma ko woon xaar parce que man dama jaaxle woon sax li tax équipe ba nekk fa moom kese te man samay supporter <clears throat> ñooy sama doole équipe duma la wax détail yëpp mais si gàttal ñooy doole équipe bi E, moo tax mënuma woon xaar te man gisuma woon lu war tax man samay ax ak samay yelef waa yenn kaw ñëw ne man du du du du ma ko jël route bi la ñu wax voie publique voie publique mais loolu boo si xulowee foo dem yaa tooñ euh, sëriñ bi voie publique man waxuma waa Ndita sax mais équipe ab Kenya ba ba doon jëm si FIFA bi fii waa wa waa waa waa taxaw ne du fi jaar waa Etienne ñoo tooñ dix fois waxuma nag kaa xam ne dax am ay yele axam ak yeleefam il faut ñu xam ne aussi dëkk bi dafa am yoon te gis nga euh, constitution Sénégal li mu ñu jox nun du ñu nangu waa Etienne di ñu ko xëñ jusqu'à la mort tali bi ñëpp la jaar foofu la noo jaar pour mu leer ñoom ba déggee ne dañ xa nar beñ man maa wax booy yi ba kenn jël gànnaay li tax ma sacrifier ma bopp man mënumaa teree loolu booy yi ba pare ñu ñëw in jël gànnaay attaqué nu te man du ma yaaxule te man duma ma gaañu tu vois coow yi li muy am après man maa ngi hôpital samay tànk yi yëpp dafa tëju parce que dañ ma doon dóor ay xeer may ma dugg ci biir foule bi di calme pour mu leer Dialaw TV wax leen ko ca kaw tali bi foofu du titre foncier pour yenni kaw gis nga ñii ne Kaolack ñii ne mi ñey dërëm lañu dajale difar tali bii nii duwaay waa ñoo ko moom bon waa Eten mënuñu ma faa teree jaar pour mu leer mënu gendarmerie yi bi ñu jëlee sama équipe fan lañ ko jaarale si voie publique bi ñépp moom gune yeeni kaw ba dee dañu yaakaar ne foofu yeeni kaw moo ko moom dañu juum encore une fois magi yenni kaw foog ñu wax ak ak guni yenni kaw kàddu yëpp dégg na ma ko même jigéen ñooñu sax am na ñu lu ne ñu ngi koy wax mais c'est pas grave ñun jàmm moo nu tax a jóg te jàmm am na parce que lii am nii mënoon naa gën a garaaw mais quant à équipe ñu ñu tere ñoo jaar fii nii loolu mënut ne bés bu ma jotee ne. passage bio temps warul toppa tali bi traversé yenn kaw boba samay supporter bu dem dina leen jëlal oto mais en tant que mu ngi nek voie publique fu nit ñi wara jaar sama supporter sama équipe bu ñu waree dem dinañ jaar piéton comme ñep dem seen yoon lolu moy deug gi jarul sax muy gudd bes bu ñu jotee kayit gu wané né wandi tax ñoo jaaré tank fi traverser kaw ñu jël auto mais kayit googu en tant que ñëwul fii lañuy jaar négligence am na ci négligence am na ci ak yàkkamti aussi néglisance ak yàkkamti parce que brigade wax naa fa ba sama dëna jog mais comprendre ñu woon bu dee commandant bi comprendre naa que dine part parce que xamul enjeu yi ku fiy doog a ñëw la mais commandant yi daan teewee gare yi Etienne koo si wax garay eten li muy jëkk a xelaat mooy renfort dafiy fanaanse fii ànd ak ñëpp dem stade mais commandant bi seetlu naa ne noo seulement dafa yéex a ñëw man ma woo suñu chef village pour mu woo ko yiix naa ñëw ba pare gis naa ne bii mu ñëwee ba ba teew lay doog a woo renfort parce que xamul enjeu yi moo tax ma ne négligence am na ci ba dee bu dee waa zone man bi may wax euh, brigade président zone mu ngi fa ah. lenn rek laa leen di euh, euh, reprocher ñoom waa zone dañoo xaw a ragal mais Etienne li mu def nii Etienne dañ ko war a acc dañ ko war a acc Etienne waa ñangal saisi yi ñu yàq un million cinq cent lañ lañ lañ ko xaymoon ñi liñ yàq ëpp na deux millions suñu force de l'ordre renfort bi déplacé ñëw renfort bi déplacé ñëw ñaata la ñuy coûter loolu suñu xaalis la loolu dañ ko war a calculer def ko si liñ yàq te ñoom ñoo ko waral li koy firndeel mooy ñaata lacrymogène la la la force de l'ordre yi sànni démb amul benn bu ñu sànni si fuulu di tax parce que dañoo dal dégluñu ñu dalal leen yëpp si waa yenn kaw lañ ko sànni Euh, zone bu ma amee lu ma leen di wax mooy nañ aj yenni kaw parce que li ñu def équipe def na fi ñu aj ko mais dañoo daaneel barrière yi stade bi ñoom supporters yi eten dañoo daaneel barrière yi stade bi dañoo xotti mbaal yi te mbaal yi bi ñu xotti dañoo ñëw ba fekk suñu joueur fi ñu ne seeni camp ñu xotti mbaal yi te loolu wax naa ko brigade ma ne ñoom suñu match ba jëkk ba seen supporters yi dañoo jóge fi ñu ne fekk ñu fa ñu ne mais Idi dane non loolu seen zone la mu andil ma demi terrain mais bi maa ngi xaar mu wax ma lii lan la comme moom loola la yoon euh, brigade na ma wax xale yi li ñu def démb ba xotti mbaal yi ba ñëw sama biir ay joueur na ma wax lan la dana jafe torop ñoom ñu layal liñ def ñun bëgguñu di wax parfois mais cër bu ñu leen jox yéen waa Dialaw TV ah ñu xam ne bu ñu waxul ñële wax nañu te ñële dañuy jàpp li ñu wax mais daal bu ma leen mënee wax dëgg rek mooy damay gërëm waan di déggal bu ñu déggal seen ay kilifa dama leen di gërëm di leen sant parce que bu déggal ne déggalu ñu ñu kilifa yi démb ma doon naa ñaaw torop euh, waa zone daal nañ jël seen ay responsabilité ñii li ñu def ñëpp dañ ci teg seen bët wa eten li def ñepp dañ ci tek seen bëtt té man préféré na sama match bi ñew mu nekk final parce que eten toglo na bopam waaw lool daal la amon lu lay tontu pour wa zone ñu doj jot loolu ñun euh, wa Garay pré nañ ci eten te wa eten ñoo fi génne seen bop ci course bi nañ ñu jox benen équipe bu ñu finalul euh, bëgg a Sénégal jëm ci kanam parce que li buñ ko risqué ah. assuré tuma dara dinaa dégager samay responsabilité parce que buñ la mbéjee tooñ la dóor la gaañ la kii la war a fiyul ki war a àtte bu àttewul li mu war a àtte lu xew moom moo doon àtte moom la wasalaam